ñu tisli xataa yaxmada ba te mu sante allah maanaam bu tislee te waxul dara nag moom du ko wax dara day aajowoo nga dégg mu wax yarxam ko nga nga dégg mu wax alhamdulilah fi santul rek moom ko wax yarxamukallah su fekkee def na ko yetti yoon ba tey say boo yem ci ñetteel bi bu tislee nga wax ko bi saasa yarxamukallah mu dellu ko defaat dellu ko defaat mu ñett foofu dal naa yem bu siwaatee yoonu ñeenteel nga xam ne kon daa soj rek ak wéradi la sëy boo ñaanal ko yàlla defal ko jàmm faj ko waaye jër jërti waxaat dina ndokkeel yarhamukallah wala yaxilu du dagan li muslimin ñeel ab julit ay yaxjura mu tong axaaxu mbokkam fawqa thalathati ayaamin lu kawe ñetti fan maanaam sa mbokkum julit sañoo ko jàmb doo ko tudd doo wax dara jëm ci moom lu ëpp ñetti fan may nañ ñetti fan yi ndax xam ne doomi aadama moom matut te dina am lu koy naqari waaye bu ñetti fan yi jeexee say ba daal di jeexal tong ba daal di koy nuyu ngir ci ay jeexal tong ba te boo ko a yem ci nuyoo ba kese bu fekkee la nga koy jàmboo nag moom du yëfi adduna kese am ngir yàllaa tax mel ne moom nga koy sant lu yàlla santaane tam di ko gàntu mbaa nga di ko aay yàlla aay tam di ko def rek fekk loo tax nga jàmb ko jàmb ko mën naa yàgg ba ci weeru mbaalu ko sax ndax loolu àq yàlla du àqi si digganteeg sa bakkan dong wala yatanaaja du déyante isnaani ñaar doona waaxidin ci kenn ñett ñett ànd ñaar ña kese di déyante bàyyi kenn ka loolu dañ koy aay ndax dañuy bañ mu ñaam jort ne xëy na moom la ñuy déyante di ko fexeel wala yu jootul dagan ay yaxlawu mu wéet bi mu ra ci jigéen lay sat yoo xam ne déet moom bi maxaram mu dib araamante loxo ñeel ko wala sow jëtin tey du soxna waaw ah, nee na sañ laa wéet ak jigéen joo xam ne du sa soxna te araamu la xam ne ab jaamur bu jigéen la ci yow nga wéet moom yéen ñaar dong daa wóoru ndax dañu bañ saytaan daal di bëgg a fexe seen diggante ba jotal leen jote bu araam wala yu joosu dagan an nadaru ilay xaajam ci jigéen jooju jigéen ji nga xam ne itam jaabur la ci yow maanaam daal araama laa takk ci genn wet dañu bañ nga nga xool lu may kanamam kanamam nag jàpp nañ ne mën nga koo xool bu fekkee rek ragaloo ci xool ba fitna su ko dee moom itam bu dee génn mbaa mu toog ci béréb boo xam ne jaabur mën ne ko faa fekk na muuru ba mu des kanam ko dong bu dee ci waa Màkka yi sax moom dañuy waral muur kanam gi sax boole ci ndax jàpp ne fi la taar bi feeñee xaatimatu li ab mottali la yombax yi dana yàlla lil insaani ñeel nit allah wira bu def ko gis illaa mu xasilan ndare mu di aji amal xasanatan yiw li maxaadihi ñeel delloom nga ci àlaxira aw dirhaman ba ab dërëm li maxaasihi ñeel dundam bi fii ci àdduna nee na nit kat fu ko gis rek war naa nekk ci lu ko amal njëriñ benn mu yittewoo lu ko fii ci àdduna ba lu koy lu koy waaye tam loxoy kese moom ëpp naa def rawante na nag nekk ci lu ko amul njëriñ rawante na far nag nekk ci mooy mu dolli ci wayatulu ko te muy bàyyi maa lépp loo xam ne laa ya ani du ko jëriñ lu ko amul njëriñ rek muy wax muy jëf muy xalaat na ko jéem moytu wa yaxtarisa te muy wattandiku min nafsihi ci bakkanam nit fu mu toll war na wattu bakkanam te xam ne bakkanam mooy noonam bi nga xam ne moo gën jàgg ci ay noonam gën cee bari pexe gën cee mën a lor ne wattu ba kanam faawu saa yu nekk wa yaqifati muy taxaw xindama fa lépp loo xam ne ashkala lant na ab jullit daa war balaa dugg ci mbir xam la ci lislaam wax muy mbirum àdduna muy mbirum diine ci yam du du jekki-jekki rek song mbir te xamut la ca lislaam wax bu mhm, ko xamut da koy laaj koo xam ne doy loon na xam xam ak diineem ko defee lu mu ko wax rek mu topp ci loola wayum sifati muy sidd jëli saxoo lii na te ko jaani baxoo ak ak wàllam muy ak wetam wayas faate muy sama te muy taqoo astabra muñ nee na bu la yàlla boole kenn ngeen ànd moo xam ne ngeen toog moo xam ne ngeen ànd tukki mbaa dara nga koy jëflanteeg moom jëflanteeg jullit ak moroom ma jox ko àq mat bañ a wetam dañu jàgg ci kawam bu defee lu war def nga baal ko ko xam ne doomi aadama matut te muñu rek ngir yàlla hmm. wa in jaala sa ndeem toogaale naag aaliman aji xam nadara mu xool ilayhi jëm ci moom bi xëy nil ijlaali ci bëtub màggal wayoon sitaté muy déglu la wa ñeel ko xindal maqaali fa wax ja nee na su toogaaleeg boroom xam-xam boo xam ne buy jëfee la mu xam la ngir yàlla kon na ko xool xoolu màggal ngir yàlla su waxee mu déglu ko te fas ci yéene jariñoo wa in raajaxoo ndem del tonte naag moom li ñuy wax del tonte mooy discuter mooy waxanteeg moom ci masala raajaxoo mu del tonteeg moom tafahuman ngir bëgg a dégg wala lu xaariduhoo tayit du gaaralanteeg moom maanaam du safaanoonteeg moom fii jawaabi saa'ilin ci tontal aji laaj sa alahoo ji laaj na ko nee na booy waxanteeg sëriñ boobu ci menn masala da koy def rek ngir bëgg yokk xam-xam bul ko def ngir wane sa yeewute ba dara bu dee tontu keneen tam da nga dégg ci tontu loo xam ne yow daal jubbu la da daal na nga dégg yow du koy teelu ndànk rek ànd ca ak teggin waxanteeg waxanteeg woo xam ne doo wane ne du noonu ba lu mu du ñàkk teggin wa man naa dara koo xam ne day jamante jamante muy bokk di seet fi nga xam ne ci xam-xam fa bi sakinatin na ànd ak dal wa waqaarin ak wegu wa tarkil istixlaay ak bàyyi sàkkoo féete kaw wa xusni ta anni ak rafetuk teey wa jamil adabi ak aji rafeti teggin nag bu fekkee ne yaag keneen da ngeen di séq am masala di ko seet ba xam ma kenn ku nekk am yéene bëgg feeñal dëgg ga rek bañ topp ko waaye bu mu ci jublu lu may loola te itam kenn ku nekk ànd ak dal ànd ak wegu te bu mu rek naa fexe ba wax ba lay ko rek mu jëm ko bal bal lay ko ci wey rek loolu amul solo déedéet na ànd ak rek ci bëgg ay dëgg feeñ xam ne dëgg gi feeñ ci moom ak mu feeñ ci kajas la yemale la yemale képp ngir yàlla ko yéex ñu ànd ak tey ànd ak teggin ndax fa innahuma naka yooyu yaar mu ay naa ni aji dimbali lañ ala talabil xilmi ci sàkku xam-xam yaar yi moom nee na am na solo lool ci sàkku xam-xam mooy tey rafet teggin yooyu yaar moom rek mën naa may lu bari bari xam walxam na xeeti jant yëpp lillah aji sax la ñeel yàlla wax dafa moom rek wasalla te yàlla na dool tedd nga allahu yàlla ala sayidna ci sang muhammad waxala ahli ak ñooñam wa saxaabi ak ay saxaabaam wasallama tam dool leen woolu bi hamdulillahi ànd ak sant yàlla taxala kawe na tamma la alkitaabu téere